ana sa yaay. ci jàmm. kon finalement ñibbisi nga quoi. mais dafa loo xam ni il faut ma wax la xam ne man damay def sama devoir de parent vis-à-vis de toi meroon naa la trop trop ba léegi sax d'ailleurs yow imagine nga un père de famille. qui vient trouver ci biir chambre hôtel ndax loolu dina ko neex. papa man hôtel boobu dama ko woon pour fodé dañ ma wax ni juste dañ ma boole ko pour casting ba ma demee nag ci la indi yenn jikko yi mais ni ma fekkee ma toog moom laa toogee ba ni nga ñëwee ba may génn def fa dara lu ko. dara ay xale yu jigéen yu bëri mais casting il nga xam ma que dañ koy def ci lieu public def annonce publique daf ko organiser ko ci lieu public képp ku mu intéressé ñëw fa mais Kaffrine bu ñu woo ci ay chambre d'hôtel loolu leneen la li ma la doon wax moo nekk ni man bañu ma la man sa waajur laa sama devoir mooy teg la ci yoon bu baax loolu manqué loo dara soxla boo am naa ci. Mais maintenant, ça me devez me protéger, je compte. pièges qui tu peux pas me faire de la vie. Tchao, tchao, tchao. Bonjour, chère. Nous ne sommes pas Même les rats de barre les plus invisibles, nous sommes tous troussés. Ah, mais quelle nouvelle investigation! Mais la technologie va avancer, non? Hein? Sinon, ça va? Eh,

laa wax nga jox ma ko sinon je t'amène au tribunal. dañ leen di woo ay casting comme ni nga waxee nii di leen piéger ci ci ci réseaux sociaux yi di leen envoyé xaalis pour mettre leen façon bu nekk dañ leen ko def dama lay jëndal téléphone dama lay jëndal cheveux dama lay jëndal loolu yëpp ay naxaate la ay wax la une fois ñu am li ñu bëgg c'est fini sax et yenn saa sax tu es en danger am na bi ñuy jël ay jeunes filles di leen yóbbu leen di alal sacrifier leen rey leen complètement pour alal wala pour pour pouvoir man la xam nga ko dama nekk dans ce milieu là j'ai beaucoup d'informations par rapport à ce qui se passe et man en tant que père de famille mooy protéger ko yéen doom yi li leen war mooy déglu bu baax seen waajur li leen wax parce que ñoo leen jëkk ci àddina ñoo leen expérience te dañ leen a bëgg aussi bëggal leen lu baax parce que waajur boo gis ndamam mooy doomam réussir. tribunal monsieur Tall tribunal <laughs> tribunal bu ñu fa demee yaa ñàkk ah bàyyil waxi tribunal foofu ay procureur Monique Nata ñaa ngi fa mettre amara fa noppil bul wax. booy sama clé eh, dañ ko génne wala eh, eh, sa biir bi ma ma teg ma sa biir gis nga su ma la toppee sax dinaa regretter dara. xool ay eh, doo jot dara laa la wax ngay taxaw naa ma ay eh, su ma la toppee affaire yooyu. Ah. mais lan la monsieur la la ah, nga naa ma ay kër ñëw ba sama kër di indi ay bouga violation ah. man mënoo maa napp bi doo si jot xam naa li si nekk li ne si kele bi xam naa ko bu baax. ok d'accord tu avoues ko. tu yaa ko jël.

Euh, euh, wutal le billet de le visa euh, nga dem États-Unis wala Canada ou wala France fu la neex dans le monde fu la mais loolu sama xel dellu dans ces conditions là est-ce que tu seras en sécurité est-ce que nous nga gérer sa bopp est-ce que nous nga sa liberté c'est un problème c'est un problème vraiment ça sama sama fait mal moi je man la mere nga bëgg lan mooy sa soo bëggee or lu ma ko amee dama ko jël jox ko soo bëggee yére dama ko jël jox ko boo dama koy jox soo bëggee moyen de transport sax ma jëndal la oto jox la mais loolu condition que li nga tegu ci loolu mais à condition que li ma lay wax nga dégg ko li ma lay wax nga def ko c'est que tu ne toi tu es vie. jégalu ci li la def yëpp tooñ ma dikk yëpp maa ngi ciy jégalu dootul li ma gën a yitteel li tax ñu ñëw fii mooy sama diggante ak Adama Massar yow umpule woon malgré tout ce qui man je n'aime que Adama rek laa bëgg moom laa bëgg tey moom laa bëgg suba moom laa bëgg ginnaaw suba ak lu mën fi xaw Massar man aadama laa bëgg li xaw nag bëri te Massar Adama yow ak buuba yéen a ko takki woon buuba moom li mu def garaawul c'est ça tolluwaayam moo toll foofu li mu def ba ñu arrivé fii moom la yow aussi am nga ci une grande part de responsabilité lenn rek moo ma jaaxal Massar mooy Massar sa silence bi sama digganteeg Adama sa tekk tekkaaral gi nga am sama digganteeg Adama boobu ba léegi Massar jugoo doxoo si waxoo si firiwoo si léttoo si Massar

kidudu okay yow ma gis la bëggal la sama bopp bijou gis bokk ak ada ben baay gis li ma naqari ci aada ma bañ li dal ñëpp dal la ndax ñetti doom ñetti jigéen ëpp eh. na dafa doy arrête bul fekk ndox bu sedd nga bu ko bax nax sa gis sa kër rek ma rek sedd pour muy leer dégg nga maak aada nu ñu neex mel aada bu ko neexee di màndi di lang ma koy for di ko sang ba mu set ko teg aada maa ko bëgg a di ko finance ba mu neex maa ko bëgg pire man munoo koo gis munoo koo gis parce que yaak aada nekkate yéen a yem yow yow ak aada yéen a yem damaa yaakaaroon ne xale bu toog ci pooju ndeyam nga mais yow taxawaalukat nga yaak aada yéen a yem waaye loo ci góobee na ko gar ndax tànk bu toogul dëgg day demal kon yow dangaa yow dangaa ak aada yow yaangi nak sa bop aada pour mom bokul ak yow dara hmm. gis nga bokul legi fanan dong la bokku fanan yew ku nek feug dem sa yoon dëgg laa gissone ba tax ma dila ko wax comme que yow nak non nga gisse dama la say fara nga yor sa deug non yéen yéen ko sa baax nga euh Ali sa digeunte ak Adama lima ci wara dox ak lima ci wara def tàgguwuma la ci xaaruma la ci mang koy def. tu me dis Adama toujours. bien sûr mais tu n'as pas changé qu'est-ce que tu veux dire par là. changé woo don yota c'est ce comportement ci sa diggante ak Adama lu tax ngeen takliko ko tu n'as pas changé mon cher tu n'as pas changé. sa diggante ak euh, code la meilleure amie de Adam. Je suis au courant. Je sais que, et c'est une certitude, je ngi fréquenté ba de qui a yaa ngi cœur. seen Mais Massar mais Massar yo. hier tu étais chez Bijou. mais Massar. non ne fais pas semblant de t'étonner.

problème yi ñu am ñu koy lijjanteeg jàppal bàyyil ñu naan su mais situation boobu ñu koy réglé ñun ba léegi ñun sama digganteeg aada sa digganteeg aadama nag man xaaruma la ci li ma ci war a def man ngi koy def bara mun ci wax ak lu bara mun a def ci sama diggante ak yow maa la jur maa la jur maa la ëmb ci sama sama biir bi wasin la maa la jur sa yaay loo ko fukki at waxi baro waxuma ko Anta waxuma waxi baro mais bi nga fiy jóge di dem yow xam nga jikko baax xale nga mais xam nga jikko baax xam nga jikko sa lépp nga jël ko teg ci man waxuma dama la sax jëlee la yow mais sa xarit yow sax sa copine sa say xarit nga jël boole leen baax ñuy jëflanteeg moom ba muy ngi nii dugg prison. see liggéey la ma expliqué lépp la ma ko expliqué. waaye nag baax na alhamdulilah ba ma la récupéré waatee alhamdulilah li ci des moom.

yow moom tu as am nga am nga droit wax ma lu la neex parce que Massar doo doo jàmbur ci man man tamit du ma jàmbur ci yow mais Massar man ci sama wàllu bopp dama yaakaar ni lu ma nekkee fayu ma Massar man il faut ma ci sama bopp parce que dama yaakaar ni li ma nekkee dañ ma koo def soit mu nekk cat wala mu nekk loo xamante ni jub si te mënuma ci dara Massar instant bii nii moom on xola yedd yërëma ko gën Massar il faut que tu il faut que nga jàppale ma ma jóg ci sama bopp seet lan moo ma dal parce que parce que parce que à chaque fois que j'essaie de prendre la droite je me retrouve à gauche D'où ma xam sax qu'est-ce qui m'arrive te tu es bien placé pour me comprendre ma jéem a seet au moins lan moo ma dal pour retrouver le droit chemin parce que j'en ai tellement besoin Et li ma amee besoin wu retrouver le droit chemin non-là amee le besoin de te sentir à mes côtés pour me jàppale moi. parce que tu es mieux placé pour ça vraiment j'ai besoin de toi Je ma si ñoom nga jàppale pas ah li ma la wax yëpp du lu ma inventé du lu ma dara xam nga ma xam c'est la réalité Adama nag man ak yow dinañu dem seeti ko dinañ dem seeti ko di ma defal